Senghor dafa réformer constitution bi oh. dugal article trente-cinq oh. di préparer Dauphina oh. à l'époque ay ñoom Moustapha Niasse ñoom Babacar Ba il beaucoup de candidats hmm. autour de la succession Euh, de, de, du, président Senghor. Mm. Euh, Abdou nekk un commis de l'État nekk fonctionnaire topp ci ginnaawu euh, président Senghor euh, ñu def ko euh, premier ministre ensuite président Senghor démissionné Euh, bàyyi ko moom mu continuer grâce à l'article euh, trente trente cinq euh, situation bi c'est pas similaire le président n'a pas démissionné mais le président il décide de quitter. oui ñu ne dina am dauphin. d'abord et là on on en vient on en vient <laughs> aux <laughs> donc ñu dina am dauphin alors. la succession du président euh, j'ai eu quelques quelques infos y a eu des auditions président Moustapha Niass euh, moom moo organisé moom moo jiite audition yi ci audition yooyu entendre nañu la si ça m'a étonné d'ailleurs entendre dama ko fort ci bay <laughs> ça m'a étonné parce que dégguma foo waxee candidature entendre nañu euh, Ablaye Daouda Diallo Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye Diao Abdoulaye Diouf Sarr ak Makhtar Cissé beneen surprise je savais pas que Makhtar Cissé était intéressé euh, par une ambition présidentielle alors si scène bi seen secrétariat exécutif bi euh, Abdou Aziz Diop Ablaye Diouf Sarr ñoom ñoo fa euh, déclaré euh, candidature yéen ñëpp waxuñu waaye léegi man dama bëgg a xam coowal candidature bi fan la fan la fan la jóge est-ce que vous êtes candidat d'abord coow coowal coowal candidature bi xam nga boo nekkee ci mbir ñu wax lu rëy noonu boole la ci da nga war a sant d'abord sunu borom wax nañu léegi ci sama carrière personnellement defe naa ne mosoo dégg fenn amatu Ba ngi bi wala pour am lii wala pour def lii dafa am euh, loo xamante ni kilifa gu mag bu nekk ci réew mi ku ma naw mooy Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg te wér daf ma ne Amadou ba mu wuy ko mi ma sa kilifa da koy bàyyi ak sa bopp bàyyi kook boppam dama xamul ndax dégg nga wax ji bu baax. da koy bàyyeel sa bopp. da koy bàyyi ak sa bopp. bàyyi kook boppam bàyyi kook boppam. loolu dañ ci mën a jàng lu bari. en terme de discipline gis nga booy liggéey ak nit ku mu mënti nekk en tout cas man loolu lañ ma jàngal loolu laa jàngale bi ma nekkee école boo nangoo mission il faut y aller jusqu'au bout faire des boo defee résultats yi nga bàyyi résultats yi ak ki nga xam ne moom moo la ko sant mooy li nga xam ni seq naa ko ak président Macky Sall. mais da koy bàyyeel sa bopp bàyyi kook boppam. waaw. bàyyi euh, ma ñëw. waaw wala gëmoo wala ah, ko. allez-y allez-y man de nangu naa ko te ci lay dund. <laughs> maintenant. Uh-huh. bu ñu ñëwee ba fii ñuy wax su ma la ne dégguma wax ci wala xooluma ko wax naa lu dul dëkk. dégg nga ko. dégg naa wax ci. xool nga ko. naa ko xool intéressé na la tamit non defal ndànk ma ñëw du du foofu. xam nga boo nekkee premier ministre chef du gouvernement waroo wax waroo def loo xam ni amoon ci sa ndigalu kilifa te jiitaloo ko ci warul am mënuma ñëw ba ci télévision di fi def ay déclaration de candidature et non candidature ndax fi mu nekk ni man li ma li ma war mooy gouvernement bi lii nga xam ni président bëgg na ko ñu nekk ci totalement deuxièmement je suis un acteur politique ñu toog suñu secrétariat ñun ñëpp ñu ne jël nañu kàddu gi bàyyi ko ak président Macky Sall da dégg mu wax déggoo ko ko man nag maay premier ministre am loolu yàlla dogal mënuma wax lenn baa ma def lenn lu dul déglu président de la République topp ko ci li mu bëgg. mais euh, xam nga yow dañ la yàgg a prêter une ambition présidentielle d'ailleurs euh, ñu ngi naan sax loolu bokk na ci li tax président ba mu bëggee reprendre le contrôle en 2020 mu génne leen yéen ñëpp et il n'a pas parmi les gens qu'il a enlevé ñett ci yéen yéen a ngi euh, ñu ngi ne candidat ngeen maa ngi fàtte Boun Abdallah Dionne il a également été auditionné par Moustapha Niasse alors yow boo nee premier ministre nga waroo wax waroo jiite président si c'est valable pour le premier ministre c'est encore plus valable pour les ministres muy discipline gouvernementale da nga euh, gis da nga gis ay ministres yu koy def Aly Ngouille Euh, wax na ne il est candidat il a été auditionné. Ablaye Diouf Sarr da nga dégg Ablaye ah, dégg Aly Ngouille Ndiaye wax. non mais il a été non il a été auditionné. mais être a été auditionné ça veut dire que ñoom wane nañu seen seen mébéb. Ablaye Daouda Diallo il est président d'institution je pense que discipline bi bi ngay wax tamit war il a été auditionné alors Amadou Ba. chacun de nous da ngay jël ses responsabilités. mais kan moo la dugal ci audition bi. man damaa toog ba Moustapha Niass woo ma ma dem seeti ko Moustapha Niass moo la woo ma wuy ko pour nga ñëw mu auditionné la c'est normal de waxuma xaw ma audition la xaw ma la pour ma waxtaan ak moom ci réew mi ah. mais euh, ñëpp dañ naan dañuy waxtaane sa candidature euh, bokk nga da nga ko ci réew mi <laughs> ba ñu ba président demul euh, am na ñoo xam ne au début c'était très évident dañ jàppoon ne xëy na yow lay doon ak poste premier ministre beeg yooyu moo tax may may may am un un remake de de de Diouf euh, de Diouf de Diouf Senghor. Hmm. alors euh, maa ngi lay wax naan dañ la yàgg suspecté d' ambition présidentielle. vous n'êtes pas candidat candidat Alioune laa di nee na ce qui est paradoxal mooy euh, tout le monde parle de votre candidature alors que vous n'avez dit nulle part que vous êtes candidat alors est-ce que c'est un travail souterrain fait parce que tamit. dangay mel ni da ngay nekk fonctionnaire nga mel ni ku politiqueul mais vous êtes très politique. waaw mais un travail souterrain. <laughs> vous êtes très politique. non un travail souterrain. Ah. bu mën a tax ñu lay wax ci réew mi yëpp il faut et très fort pour que kenn bañ ko gis kenn bañ ko yëg par contre nga am doxalin nit ñi di wax ñi mel ni yéen di observer bu mën a am une appréciation jàpp naa ni cas de figure boobu bokk naa ci ñi mu dal xam nga bi président waxeek léegi may mun je soit énormément de monde beaucoup de responsables maa ngi toog ci sa télévision amul ci kenn ku ma ne man jàppale ma ñu bari nag ci ñoom wax nañ ma ko loolu dëgg la mais ñoom ñëpp le discours est unique mooy fi ma président yemlu appel à l'unité au-delà des candidatures et au-delà de des personnes gis nga fi réew mi toll c'est un bloc soudé dans la paire un block soudé ci biir Benno mieux que bloc boobu uni dem seeti dootu Sénégalais qui sont des patriotes loolu mooy joxe réew mi en 2024 amul beneen pexe. waaw mais euh, moo tax boo nekkee chef de gouvernement yàlla defal la ko. président nommé ma son premier ministre kon sama rôle ak li ma war a wone mooy une loyauté sans faille au président de la république. jàpp nga ne wone sa mébétu candidature euh, de loyauté la. xam nga yow wax wax nga ma ni nit ñaa ngi koy wax mais li tax nit ñi di li li ma def ba nit ñi di ko wax wala li ñeneen ñi di def ba nit ñi di ko wax te ma continuer ci loolu rek bàyyi nit ñi di wax. est-ce que vous auriez aimé être candidat non euh, xam nga Benno Bokk Yaakaar à la présidentielle de 2024 non aurait aimé être candidat oui je veux avoir ce privilège bu ma bu ma président tànne c'est un privilège d'autant plus que je pense en toute objectivité en toute humilité yéene bi mu am ci Sénégal bébét bi mu am ci Sénégal bokk naa ci ñi ko gën a xam bokk naa ci ñi ko gën a mën loolu laa jàpp mais le problème n'est pas à mon niveau di wax ay non non non non Euh, Maïmouna il faut pas euh, xam nga un débat boo ko personnalisé du baax. mais dafa baax tamit nit ñi xam ndax. xam nga mënuñ di la nit naan bul jiitu paaka ci mbaram. nit ñëpp mënuñ di la tudd. te xamuñu ndax Amadou Ba bëgg na wala bëggul. bu toll ci ma wax rek dinaa wax lu toll ci ma wax naa wax mais le premier ministre n'a pas le droit je dis bien n'a pas le droit bi may ñëw ci émission bi c'était bien calculé xam naa ne di nga ma laaj lii. ni nga amee fulla ak fayda bu dee ni nga ma koy laaj noonu lay amee fulla ak fayda bu dee ni dinaa ne dinaa xaar ba président pare ci li muy def. ba président wax waaw. parce que moi je dois montrer un exemple aux autres na keneen def lu ko neex c'est son droit. j'ai pas de problème par rapport à ça mais man mënumaa nekk premier ministre di ko wax fii mënumaa dem secrétaire exécutif ñu ne ñu yéen ñëpp ma bokk ci d'accord jox naa sama kàddu président de la République rocceeku di liggéey ci suuf wala rocceeku di ñëw ci ay télévision may mun a euh, dimbali ma nag loolu aussi. waaye bu ma bu ma bu bu bu ma puus ba foofu nag. <laughs> bu ko yàlla bu ko yàlla defoon. non di nga ci am mbégte. ah déet déet xam nga nag li yàlla def mënuma ci dara xam nga jaam moom mënul arrêté ndogalu yàlla man jàmm laa rek jaamu sunu borom la mënuma arrêté ndogalu yàlla li yàlla def xamu ko nañ ñaan yàlla rek wér te gudd fan surtout surtout. fi mu nekk nii ànd ak président de la République jàppale ko jusqu'au bout